yéenay góor jigéen yu mag a mag yi ay maam taarus naa waa kër Alaaji Basiru Jaañ dajeeg yow Washington rek say bëñ tekki woo dara caga bi mani Fatou Bintou Rosaline doomu maam Matar Gueye bu mag bi bàyyi ba fin Saint-Valentin le 13 le 14 le 15 le 16 nga dem fanaanee góor ñi ca cité Bessa yaawoo sa bàyyi génn naan dañoo sàcc sama doom di fen te kenn sàccul doomam def ay yuuxoom def wili pande communiqué naan góor jigéen yee kidnappé sama doom sa doom génn fen loola maam Matar sa doom ji dalaa fen loo ndax da nga taxaw ne góor jigéen yee kidnappé sama doom ji ñëpp gëm la ndax Sénégal looleen wax ñu gëm ko ndax dañoo faible duñuy réfléchir seeni mentalité baaxul amuñu xel dañuy dox rek ci lëndëm di jaagar jaagare xamuñu dara foog nañ ñu ñoo gën ci àdduna te ñoo gën a dellu ginnaaw ci àddina moo tax ñu soxor la papa kenn sàcc ma fa ma nekkoon maa fa sama bopp nga ne ko bu ko ŋaañ mu ne la déedéet mu bind ko ci Facebook bi ne maa woon bese yaawoo xale yu góor yi tiim ko ñii di sex nopp yi ñii di sex ween yi ñii di sex baaraamu tànk yi nga yuuxu eh ñetti weer xale bi tifli di lekk mango xool di yëy kew di macc màdd nga xam ne xale bi biir na nga yàq biir bi ne ko kaay dem États-Unis maam Matar xanaa xamoo ne xanaa dangaa fàtte kon bi ngay indi doom biir États-Unis monde des homosexuels mooy le monde des góor jigéen te da nga ne bëggoo Sénégal am ay góor jigéen ndax sa say doom ngay bañ ñu yàq bu ko neexee tëdd ak góor bu ko neexee tëdd ak moroomu jigéenam mi ngi noonu Rosaline la tudd foto yaa ngi noonu waaye nag doom ja ndey ja ku ko bañ sa yaay bon yow yaa njëkk a nekk góor jigéen Mama Talla ma ni yéen a njëkk ubbi tabaar la macha allah inda santé yéen gis nga jamra biñ koy ubbi kaay ma wax leen lan mooy jamra dinaa leen dugalal page bi ngeen xool ko parce que waa Jamra dañuy wan sénégalais yi ne ñoom dañuy xeex góor jigéen waaye buñ demee ci ONG yi nga xam ne mooy ONG internationale yi lu bi góor jigéen yi dañuy wane ni ñoom xeexuñu góor jigéen seen dossier yëpp duñ ci bind góor jigéen dañ ciy bind ne sida la ñuy xeex ak pauvreté ak cagatu waaye duñ ne dañuy xeex góor jigéen léegi su leen ONG tubaab yi ONG góor jigéen yi financé su leen ONG tubaab yi ak ONG góor jigéen yi financé su ko defee bu ñu bañee sénégalais xam ko dañuy ñëw di wane ni dañuy xeex góor jigéen yi ñoom waa Jamra 1983 la ñu organiser Jamra Latif Gueye moo ko ubbi Latif Gueye nag ak Mame Matar Gueye bokkuñu ndey ak baay àddina bépp dañ koy jaawale bokkuñu ndey ak baay seen ñaari baay yee bokku ndey ak baay Mame Matar Gueye Alaaji Malick géey moo ko jur mooy baayam Latif géey Alaaji Abbas Gueye moo ko jur maam Adama Gueye mi ngeen di dégg moom Alaaji Matar géey moom la ñu tuddee maam Matar Gueye ñooñu xale bi di tëb miir di doxi ba quatre heures du matin bu ko baaba ay dara ne ko jàngal du jàng suñ ko nee réviser say leçon mu ne du réviser ay leçon dem fekk secte boo xam ne gëmuñu l'islam gëmuñu chrétien sa doom bokk ci changé faat bintu bi tudd Rosaline Mame taar sa doom a ngi noonu Rosaline la tuddee boppam cagatu la nekkee Amérique mi ngi noonu di génn di toog ci mbedd yi sol lu gàtt yow Jamra mi nga xam ne yaa ne da ngay defar jikkooy xale yi waaw bu ràng solee lu gàtt nga porté ko plainte sa doom a ngi noonu tabar kalla macha allah nekki ci social média yi di iri góor américains yi dañ koy biiral bañ fii xale yu góoru américains yi dañ lay biiral ba pare bañ buñ la biiralee nga dem ci ñoom dañ la naan is not me nga yóbbu ko xoola Mauricio ayam am ayam father I am not the ñi ne Amérique xam nañ li may wax sa doom dem ci secte farmason yi yow Mame yàlla mooy buur la ilaha illallah yow da nga ne sa doom caga la da ne da ngay xeex caga sa doom wala ne moom caga la nga rawale ko indi ko Amérique nga xëy ne dangay xeex farmason yi sa doom dem ci secte farmason yi faat bintu bu ñu naan enda santé 1987 ngeen ko ubbi di dajale xale yi ndaw yi di leen yóbbu naan leen dañ leen di fajal sida bu ngeen fa demee ku fa ñëw ngeen jox ko 1000 francs bu ngeen paree moom ngeen di yóbbu banque mondiale ne nombre de góor jigéen bii lañ am tubaab bu tudd AMS moo leen daan jox xaalis arus bu ñu naan Enda santé 1987 ngeen ko ubbi di dajale xale yi ndaw yi di leen yóbbu naan leen dañ leen di fajal sida bu ngeen fa demee ku fa ñëw ngeen jox ko 1000 francs bu ngeen paree moom ngeen di yóbbu banque mondiale ne nombre de góor jigéen bii lañ am tubaab bu tudd AMS moo leen daan jox xaalis bu ko neexee tëdd ak góor bu ko neexee tëdd ak moroomu jigéenam mi ngi noonu Rosaline la tudd photo yaa ngi noonu waaye nag doom ja ndey ja ku ko bañ sa yaay bon yow yaa njëkk a nekk góor jigéen ma taar mani yéen a njëkk a ubbi tabaar fakal la macha allah inda santé yéen gis nga jamra ñu koy ubbi kaay ma wax leen lan mooy jamra dinaa leen dugalal page bi ngeen xool ko parce que waa jamra dañuy wan sénégalais yi ne ñoom dañuy xeex góor jigéen waaye bu ñu demee ci ONG yi nga xam ne mooy ONG internationale yi lu bi góor jigéen yi dañuy wane ni ñoom xeexuñu góor jigéen seen dossier yëpp duñ ci bind góor jigéen dañ ciy bind ne sida la ñuy xeex ak pauvreté ak cagatu waaye duñ ne dañuy xeex góor jigéen léegi su leen ONG tubaab yi ONG góor jigéen financé su leen ONG tubaab yi ak ONG góor jigéen yi financé su ko defee bu ñu bañee sénégalais xam ko dañuy ñëw di wane ni dañuy xeex góor jigéen yi ñoom waa Jamra 1983 la ñu organiser Jamra Latif Gueye moo ko ubbi Latif géey nag ak Mame Matar Gueye bokkuñu ndey ak baay àddina bépp dañ koy jaawale bokkuñu ndey ak baay seen ñaari baay yee bokku ndey ak baay Mame Matar Gueye Alaaji Malick Gueye moo ko jur mooy baayam Latif Gueye Alaaji Abbas Gueye moo ko jur maam Adama Gueye mi ngeen di dégg moom Alaaji Matar géey moom la ñu tuddee maam Matar Gueye ñooñu doomu Alaaji Mbay xale bi di tëb miir di doxi ba quatre heures du matin bu ko baaba ay dara ne ko jàngal du jàng suñ ko nee réviser say leçon mu ne du réviser ay leçon dem fekki secte boo xam ne gëmuñu lislaam gëmuñu chrétien sa doom bokk ci changé faat bintu bi tudd Rosaline Mame taar sa doom a ngi noonu Rosaline la dee boppam cagatu la nekkee Amérique mi ngi noonu di génn di toog ci mbedd yi sol lu gàtt yow Jamra mi nga xam ne yaane ne da ngay defar jikkooy xale yi waaw bu ràng solee lu gàtt nga porte ko plainte sa doom a ngi noonu tabar kalla macha allah ne ci social média yi di iri góoru américains yi dañ koy biiral bañ fii xale yu góoru américains yi dañ lay biiral ba pare bañ bu buñ la biiralee nga dem ci ñoom dañ la naan is not me nga yóbbu ko xoola Mauricio I am the father not the ñi ne Amérique xam nañ li may wax sa doom dem ci secte farmason yi yow mamatar yàlla mooy buur laa ilaha illallah yow da nga ne sa doom caga da nga ne da ngay xeex caga sa doom wala ne moom caga la nga rawale ko indi ko Amérique nga xëy ne da ngay xeex farmason yi sa doom dem ci secte farmason yi Faat Bintu Gueye ay waay site internet yéenay góor jigéen yu mag a mag yi ay maama taarus naa waa kër Alaaji Basiru Jaañ dajeeg yow Washington rek wekk say bëñ tekki woo dara caga bi mani Fatou Bintou Rosaline doomu Mame Matar caga bu mag bi bàyyi ba fin Saint-Valentin le 13 le 14 le 15 la 16 nga dem fanaanee góor ñi ca cité bese yaawoo sa bàyyi génn naan dañoo sàcc sama doom di fen te kenn sàccul doomam def ay yuuxoom def wili pande communiqué naan góor jigéen yee kidnappé sama doom sa doom génn fen loola maam Matar sa doom ji dalaa fen loo ndax da nga taxaw ne góor jigéen yee kidnappé sama doom ji ñëpp gëm la ndax Sénégal loo leen wax ñu gëm ko ndax dañoo faible duñuy réfléchir seeni te baaxul amuñu xel dañuy dox rek ci lëndëm di jaagar jaagare xamuñu dara foog nañ ñu ñoo gën ci àdduna te ñoo gën a dellu ginnaaw ci àddina moo tax ñu soxor. sa doom génn ne la papa kenn sàccu ma fa ma nekkoon maa fa ba sama bopp nga ne ko bu ko ŋaañ mu ne la déedéet mu bind ko ci facebook bi ne maa ngi woon bese yaawoo xale yu góor yi tiim ko ñii di sex nopp yi ñii di sex weeni ñii di sex baaraamu tànk yi nga yuuxu. eh ñetti weer xale bi tifli di lekk mango foroxol di yëy kew di macc màdd. nga xam ne xale bi biir na nga yàq biir bi ne ko kaay dem États-Unis maam Matar xanaa xamoo ne xanaa danga fàtte kon bi ngay indi sa doom biir États-Unis xamoo woon ne États-Unis mooy le monde des homosexuels mooy la monde des góor jigéen te danga nga ne bëggoo Sénégal am ay góor jigéen ndax sa say doom ngay bañ ñu yàqu nga jël sa doom yu mu mën a téye maam Matar Gueye yow mi nekk ci mbirum loi et nekk ci mbirum jabara bi wax dëgg rek te yàlla rekk a tax kii di doomu son sec tout dernier moment baayam am na fi jaar-jaar yu mel nii ñu def ko acquisement bu bu ko bu ñu ko bu ñu ko fëytalee kan dafay trafiquer xaalis bërki démb la baayam gaañu baayam bàyyi ko fi ci ginnaaw bayam woy fi woyu kenn dul woy muy artiste ñu xam ka ci mbiru lu baax mu doon jullit bu baax Wally nag bu demee ba nga xam ni am na ay fecckat yu mu jël ñu koy feccal Wally di woy ba daaneel ay fecckatam ñaar ñu góor foo nante ca mbir ma loo bëgg a jàppee ñooñu borom ñaari tur déedéet gaawtu baaxul fon ba ak borom ñaari tur dafa sore lii yàlla daf ko dàq te dégg naa ñu ne doomu jàmbur yooyu yóbbu nga leen yoon ana way juru ñooñu ana droit yi nga xamante ni mooy droit yu leer ana ñu toog ci droit tey wax dëgg yow loolu maa maxtaar boo ko waxee nga tëral plan ba yàllaa ngi nii di dégg la ma wax def nga rek luy indi fitna ci ñaari ñaari ñu doon fecc ba fënante loo leen mën a teg ak loo leen mën a wax danga leen tooñ maa ngi lay ñaan nag di ñaan ñi nga àndal nga bàyyi doomu jàmbur yooyu ci lu gën a gaaw wasalaam. bu ko neexee tëdd ak góor bu ko neexee tëdd ak moroomu jigéenam mi ngi noonu Rosaline la tudd photo yaa ngi noonu waaye nag doom ja ndey ja ku ko bañ sa yaay bon. yow yaa njëkk nekk góor jigéen Mame Matar ma ni yéen a njëkk ubbi tabaar fakàlla macha allah enda santé yéen gis nga jamra biñ koy ubbi kaay ma wax leen lan mooy jamra dinaa leen dugalal page bi ngeen xool ko parce que waa jamra dañuy wan sénégalais yi ne ñoom dañuy xeex góor jigéen waaye buñ demee ci ONG yi nga xam ne mooy ONG internationale yi lu bi góor jigéen yi dañuy wane ni ñoom xeexuñu góor jigéen seen dossier yëpp duñ ci bind góor jigéen dañ ciy bind ne sida la ñuy xeex ak pauvreté ak cagatu waaye duñ ne dañuy xeex góor jigéen léegi su leen ONG tubaab yi ak ONG góor jigéen financé su leen ONG tubaab yi ak ONG góor jigéen yi financé su ko defee bu ñu bañee sénégalais xam ko dañuy ñëw di wane ni dañuy xeex góor jigéen yi ñoom waa Jamra 1983 la ñu organiser Jamra Latif Gueye moo ko ubbi Latif Gueye nag ak Mame Matar Gueye bokkuñu ndey ak baay àddina bépp dañ koy jaawale bokkuñu ndey ak baay seen ñaari baay yee bokku ndey ak baay Mame Matar Gueye Alaaji Malick Gueye moo ko jur baayam Latif Gueye Alaaji Abbas Gueye moo maam Adama Gueye mi ngeen di dégg moom Alaaji Matar Gueye moom lañu ñu tuddee Mame Matar Gueye ñooñu doomu Alaaji Mbaye Gueye